caricature xamuñu kuy Mamadou Lamine yaa jara magam Mamadou yaa jara tantal yonent bi yaa nu gën ndey yaa nu gën baay Mamadou yaa nu ko jara yaa jara magal yaa jara magal ku tëdd ci Madina ila way man ya rasulallah waaw jaram la ga indi raw du la sa sang ba ga madina jarama la ilaha illallah man noonu yaa nu xamal yonent moo do yaa nu xamal yonent ya rasulallah oh, waaw ya jarama la ilaha illallah man noonu yaa nu xamal yonent moo do yaa nu xamal yonent ya rasulallah oh, xamal Cheikh ya Rasulallah ya jaramaka illallah man munu yaanu xamal yonen Sëñ Babacar yaanu xamal Cheikh ya Rasulallah ya jaramaka illallah sa yaawe ma way ma yaa rasuulallah wayal ya naan malikiya laay wayal malikiya yaa jaaratal maliki ya lay bégal maliki ya maliki ya yaa jaaratal sàccuñu dañoo doon way kon waayal yaa Rasulallah bayal sa bayi waayal yaa wara way bay yaa jaatu bay bayi waayal ñaanu Babacar ya Rasulullah ñaanu sëñ Babacar mo ñaanal sama baay ma ko waral ya jaara lépp ci sëñ Babacar ñaan googu مطلقا وانا البيت للمجيز سابقا ما أنك سبيدي وإياكم ما بيت يا جرما يلا دفلك بقنا فك ما ويلا يا رسول الله باي بدل بقنا فك ما ويلا يا جرما